ضج قلبي من خيال قد سرى قد سرى قد سرى وسباني قد جفا طيف الكرى ضج قلبي من خيال قد سرى salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk internet yu Amsa TV ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen ziar di leen sargal bu baax a baax waaye itam di rafetlu ànd beeg ñun ci sunu ay jotaay comme nu nu ko baaxoo defee rek saa su ne bis bu ne lu xew rek Amsa TV da ciy ñëw fësal yéenam waaye am Amsa TV da ciy ñëw ak yeneen faset mbokk yi ngeen ma gisee fi ma taxaw ngeen xam ne maa ngi paal bu ma gisee fi ma taxaw ngeen xam ne maa ngi ci jumaa ji nga xam ne fii la alaaji rawaan gom tëdd bu ngeen ma gisee fi ma taxaw nii di ngeen xam ne maa ngi ci dëkk bi nga xamante ni Mame Rawane Ngom moom moo ko sanc Mame Rawane Ngom nag ci taalibe Seydil Hadji Malick waaye tam nekkoon ki nga xamante ni moom moo di xaritu Seydil Hadji paal boo ko waxee wax gàmmu goo xamante ni gàmmu ndigal la waaye tam gàmmu paal boo ko wax gàmmu goo xamante mag ñi yàgg nañ koo euh, taxawee euh, maam Seydil Hadji wax naan boo jógee booru Tiwaawan bu romb Tiwaawan di paal waaye tam boo jógee booru Ndar a wax ne déplacement ñëw fii ci Paal pour wan leen gàmmu paal naka lay doxee gàmmu paal naka la ñu koy euh, doxayal naka ma damay ànd ak nga xam ne moom moo di euh, euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo yàgg a teewee li moom moo di gàmmu paal ñu wax ñu gàmmu paal yan moom moo di gàmmu paal yan digle la ci Mame Rawane Ngom digle Samba dañuy doxantu rek ndax yaakaar naa ci buntu jumaa ji nga moom moo jumaa Mame Rawane Ngom am na ay kilifa fa nekk ñu laaj leen ñoom naka nga xam ne moom la ñuy dundee li nga xam ne moom moo di gàmmu Paal. waaw ah, góor gi ñu fekk la nga toog fii nii ci Paal ku wax Paal wax dëkk Maam Rawaan Ngom est-ce que mun nga noo wax Maam Rawaan Ngom moom naka la doon dundee li nga xam ne moom moo di gàmmu gi. waaw ah, jërëjëf Maam gi dafa woote woon ngir yàlla ak yonent bi bëgg woon benn mu mbaay jàng alxuraan ak way ak firi moo taxoon ñu duñ ci am li mu leen digle topp yàlla ak diine ak liggéey di di tere lu bon di digle lu baax loolu rek laa si xam. tey nag ñoo ngi fii rek di dundal li maam El Hadj Rawane doon dund moom li mu dund woon rek mooy jàng alxuraan ak jàngale ko dem ci jàkk ji ak liggéey ak dem ci tool yi. yar njaboot yi ñu tegu ci siraatal que mën na noo xam maam Rawaan lan la daan digle ci dëkk bi bu gaamu musaan jot. ah bi bëgg sallallahu alayhi wa ak li maam Cheikh Diagne Chérif bëgg ak euh, maam Cheikh Seydi Hadji Malick si mooy lépp maam fii daal liñ fi digle li mu bëgg dëkk ku fi ñëw da nga pour sàkku si ngëneel ak yiw waaw ku fi ñëw daal dafa bëgg ku fi ñëw nga ñëw wut si fi yiw booy dem. yóbbaale yiw waaw moom ga nee na Seydi Aji raw na ñu ñu ko ñëw raw mu ni jàmmati ñu ba ñi am ñi am maqaamu ñu bare Seydi Aji Rawane na leen raw léen tax mu ni wa kaana nu xatmal xuraani kasa sigril faridati aw ak ci sayl imam dara du woon métiem lu dul jàng alxuraan ak weddu salaatul fatiha moo doon liggéeyam. ah gàmm gi dundee ko rek. di ñaan sunu borom bi ah neex na yàlla yokkal nu xéewal ti yàlla barkeel wërsëgu njaboot gi barkeel sunu wërsëg guddal sunu fan. at mu ne nu koy teewee nii bay daaw yàlla indi fi feebar bi kenn ñëwu fi si at yi ren yàlla may nu kattan ak wér ba nu mën ko teewee ren macha allah gàmm gi eh, xumba neex na macha allah dëkk bi fees na dell. macha allah. waaw mbokk yi bu ngeen déggee li nga xamante ne moom moo di eh, kàddu yi fi jóg ci ki nga xam ne moom moo di Mame Rawane Ngom bu ngeen yi fi jóg ci li nga xam ne moom moo di Gamou Paal war ngeen a xam ne kon li Seydi Hadji Malick waxoon ci Mame Rawane Ngom ne rawaan raw na leen loolu kàddu yi dëgg la mbokk yi leen seen télévision Amsa TV indi loon fii nga xamante ni moom moo di gàmmu paal doon xool ñi nga xam ne ñoom ñooy pèlerins yi nga ne ñoom ñoo ñoo gàmmu si gàmmu paal naka la ñu dundee gi waaye itam yan yëg-yëg lañ am ci li nga ne moom moo di gàmmu gi waaye nag bu leen toxal seen déglu bu leen toxal seen fii ci Amsa TV ndax njëriñ a ngi ci dara du leen raw ci li nga xamante ne moom moo di gàmmu paal dañ leen jox dox daje rek ci kanam tuuti nañ ñëwaat ak yéen ci yeneen reportage nañ ñëwaat ak yéen nga xamante ni rek ay xewet la fi nga xamante ne moom moo di ci gàmmu paal dox daje bi ci kanam tuuti lay doon ak seen télévision bii di Amsa TV jërë ngeen jëf